mu salaamullahi wa rahmatuhu wa barakaatuhu alaykum wa alayna wa ala jamii almuslimina walmuslimat mbokk yi ñu ngi leen di nuyu seen mbokk mu bokk ak yéen lu bari di seen wólëre mu wólalanteeg yéen lu yàgg bokk ak yéen lu bari wólalanteeg yéen lu yàgg moo leen di nuyu baax di leen wax déwénati bés bii donte tur yi dajewuñu waaye ci dajak dat ak weer ci lañ fi nekkoon daaw su yóbboo nag tey di talaata daaw doon alxames waaye daal décembre la vingt quatre daje woon nañ ko it daaw jéeg ak at ya ko féete gannaaw kon yàlla nañ ko dajewaat ak at yiy dëkkmal si bi jaay sayidil wujudi wa alami shuhudi sayidina wa maulana muhammad pour ma bañ a guddee ma def ñi fi daje rek ñeent nuyu leen kilifa yi ak ñi ñu jaboote ku fi dul kilifa ci njaboot gi ku fi dul ci njaboot gi ci kilifa yi nga lafal loolu mooy nuyu it góor ñi ak jigéen ñi ku fi dul góor ci saayir di jigéen saayir laa wax ndax ponkol moo amam sikkimam sol tubéyam kenn sañu ko tudde lu lu ko góor la ca des nag xam ko bañ naka sax ba tudda baax bari nay tur lool waaye baax a ci gën a siw ndax ñaare olof yi sax boo demee ba say pexe jeex li ngay mujjee sukkandikoo dëju mooy yàlla ku baax la mbir mi de garaaw na waaye yàlla ku baax la rabbuna karim la arab yi wax rabbuna karim gis nga ñi fi fàññeeku bi ñu sosee daayira beeg léegi dinu xaar ca àjjana amin boo gëstu woon ci baatin ñi judd ci seen biir a ëpp ñi mu fi roñe mooy jële fa ko neex fu kenn xamul cëppeel fii mooy roñe fii lu ñépp a janoo yóbbu fa ñu jëm nun ñépp waaye bi mu commencé roñ ci groupe beeg léegi ci at yii boo ko waññoon waññe li mu leen remplacé ci liir ak ci sët donte waa daayira bi màgget nañu sax ba mënatuñoo waaw waaye am nañuy sët boo contrôlé woon baatin boobu nga xam ne li mu fi roñe li mu fi dellu ko ëpp alaaji muxtaar a ngi fi di suñu kilifa sama doomi ndey di sama doomi bàyyi abbas a ngi fi di sama xariti xol du bu làmmiñ sama rakk ngi fi kaar doy ma lool muy alaaji umar bi ñuy wax ngaala saay-saay boobu def na faas te narula tëral ngànnaayam ba ilaa yumal xiyaam ñu di ko wax iblis ab la sax ci lañ ko jële naagu na yërmande yàlla mooy jéem nu munu téq tële waaye su tenir yi maam yàlla tax du arrivé ku am turu saaba mbaa turu yonent ñu di la ko ooye doonte defu la dara te am liimaan àjjana nga jëm mu profitoo nag kuñ ne Ibrahima mu ne Ibu buñ ne Ousmane mu ne Usu ñu ne Omar mu ne Ngaala kenn ku ne nag rof na la astur astur soo xam ne njaabal la xeex bu mu gën a dox bi nga xam ne mooy xaqiqa bi di aqiqa war a yor war a doon ticket bi nga xam ne bu langee moo lay jàllale ma bëggoon sunu sëriñ ñu ngi toog di suna jarbaat Sidi Hadj Malick kaar mooy woy juru woy juram gis naa nag tant yu bari yu ma koy fekk néew na daal lu ma fi jàng te fekkuma ko ci tant bi yàlla dafa def nag suma jarbaat yépp suma jarbaat yi sama jarbaat yi nga xam ne Sidi Hadj Malick sama sama bàyyi Hadj Malick moo leen meññ kaar moo ma ci jëkk miin jëkk di ma ci tooñ ndax dafa jànge mbuur te mu jege ñoon ngapparu war naa mat ñaar fukki at ak juróom nii la may nuyoo fu ñu daje ba léegi bi may yéeg nii la ma def loolu moo ci jublu mu ngi ci jublu woon boobakat mat na ñaar fukki at mu ngi ci jublu woon ne yaay at soin sama nijaay waaw loolu la ma daan wax ëpp na ñaar fukki at ak join góor gi moom la ma daan tudde mu ngi fi kaafa tuwaar fa kàlla ak ñu baax ñi fi ne ñu barkeelu ci alaaji mu jàngal ni fatiha alaaji muxtaar abbas ikaani kii ñaan ak ki naan amin ñoo bokk yem ca daraja ca yàlla ñu ngi ko dégg nag ci yontu yàlla Muuse ak Aaruna ndax Musa doon def rapport bi naan yàlla musal ma ci Firxawn fereeram Aaruna ma gën ko ñetti at ñoo bokk benn ndey waaye yàlla day seet lu ko neex def ko bu toppoone at kon Aarunaay doon yonent waaye ñoo bokk benn ndey baay Musa la yàlla délégué ba Musa ñaan nag gis nga toujours conversation Musa ak Firxawn boo amee dégg daa ci gis ni yàlla génn toujours ne ñoo bokk risaala gi waaye baat bi président bi moo di Moussa waaw toujours ci wax alxuraan dem dégg nga alxuraan amul ba Moussa waxul woon Firawna inni rasulu rabbil alamin ba Moussa jóge Madiyan def toor bu rëy ba mu def ci njuumte mooy rey nit nit ka di notable bu rëy mu nëbb ñu di ko seet ba gis ko décider rey ko li tax gouvernement secret xawula mën a dëgër li tax yàlla ëpp gouvernement secret yàlla secret dadul am kenn ku ko ci jàppale ab gouvernement nag lu mu rëy rëy président fokk mu am ñu ko jàppale ña ko jàppale ñooñu dañuy ami mbokk ki xarit mënuñu leen na bëseen bopp président bu ci foog ne am nga secret réere nga li xew sa naar narañ ci mbedd mi te mës naa wax benn kilifa ne ko yàgg na bari caabi dana mën a tëj waaye mënu la tëj sa jëf jëf ji moom ci mbedd mi lay fanaan koppar yi day mën nañ ko tëj ak oto yi ak soldaar yi waaye jëf ji ci mbedd mi ci mbedd mi seen kile comme gars yi ba Moussa ba Firxaw na ne Moussa fu man rabbukuma kooku tas dee li sim la fa mu teel la wax ji fa man rabbukuma na yaa Moussa am déggu ëpp xaala Firawna fa man rabbukuma kuy seen borom yéen ñaar ñii yow Moussa yow laa wax xanaa bi mu ne fa man rabbukuma ñoom ñaar la adressé mais mujj na rosal Aarona na ko yaa Moussa direct yow laay wax yow Moussa ku leen yónni ku dul man ku ngeen mën a am buur ku dul man rabbuna la si ahta kulli shay'in xalqahu suma da mu ne ko kon fi ma baalu xurul uure mu ne ko in ma inda rabbi fi kitabillahi rabbi wala insa mu ñaan ñaan gi dugg ci waxtaan gi ci jeex ak mi ngi dëkk ma di niroog fajar bi mu nga xotti ci agsi waaye lu ñu yor ci luy gaañi mbaa luy lore mbaa wàññeeku départ kat bi yàlla na koy boole jaay rek baati lu ñu doon mébét bu yàgg ba te kii di bëgg agsi yàlla na ko indiwaale bi ormati rasulillah sidi muxtaar bismillah buy doxi soxla dajeeg nit laaj ko turam bu tur wa dëppeeg am mu ne yoon wi dana leer bu tur wa dëppeeg ñàkk mu ne yoon wi daal du lën dina lëndëm kooku mooy faallu teera nag moo di lu la dal am ko ko fekke nga jiiñ ko ko gis nga keroog ba nabi dem Makka Medina te ànd ak xaritam bu baax ba Abi Bikrin ibnul Urayqata di leen giidee Amir ibnu Fuhayrata di seen sant dafa am waaju leen dab waaja rey na bi la bëggoon tudd Burayda ànd ak soixante dix personnes parce que guddi gi ne bi génnee fekk ne médecin yi na labbe yu rëy yëpp signalé ne waa ji juddu na at sàngam am na at sàngam at ab sàngam mais tànk mu ngi mi dina du am doole màkkataa dina ko génn nag dem Medina ba nga xamee ne weer mu ko waree génn jot na dañ ko signalé ñu dog gox yépp fu yoon wu mag rek am na mag ñu fay am na ñu fa jaar bu rëy datu nag yàlla dogal moom mu dajeeg nabi parce que moo jëlal yoonu Medinatul Munawwara ànd ak soixante-dix personnes ne nañu bu rëy da ak suraaxa ku ci nabi jëkk a dajeel ñu ne ginnaaw bu mu géngoo ko suraaxa la ko bu rëy datu daje nabi na ko mashmuka mu ne ko bu rëy datu mun a gis Ababacar ne barada allahu amrana Burayda mooy firi sedd mu ne Ababacar sunu affaire sedd na guy kii Burayda la tudd kuy sa baay mu ne ko ibnu Salim Salim mooy firi sobe mu ne ko eh sobe nañu ku tudd Burayda bàyyam tudd Salim kon ja raw nañu ci gën giir nga bokk mu ne ko bani Sahmin càmmin nag mooy firi sa wàll mooy ñu séddoo ku ne jël wàllam mu ne ko yée nan daw gaaw lañ doon wut am nañu ko ku daje ku tudd sedd bàyyam tudd mucc pinc ma mu tudd ga dëkk ak gañe ba tudd partaasoo séddoo kon sunu affaire leer kooku mooy faal abbas nag nee na ñaan nga dafa dëppoog lii ñu bëgg a ñaan mu bëggoon nag ñu ñaanal niiw yi teg ci ñaan ngoogu niiw yi ñu bokk koog ñoom ñaan googu gi ci des nag nu moom ko moom rek ndax luñ mën a bokk li tax nu mën a bokk ak ñu seen ñaan wéetoo sunu gos mooy dañuy deey dañuy deey fekki leen te ñoom dootuñu fekk si moo tax nit ñi xam ne ñaari dëkk bu ñu sëncandooyee bii taxuy dem te kenn du taxoo fële ñëw fii lu yàgg yàgg bii gent waa àddina rek kay taxu fekk alaxira waaye waa alaxira duñu taxu fekk see tund kon nu def ñaan gi ni ko sëriñ bi waxe fatiha fukk ak benn ci xul wala waxat ngir ñoom ak ñun am fatiha ayati kursi xul walaawu fallaki ak naasi salaat fati ku ci wéetate am soxla di ko ñaan nga jëfandikoo ko ginnaaw boo ko jëfandikoo fii tey yal na ko yàlla def mu di gént gu dëppoog ruya saaliha jusun min arbiina fi shitta adonka bi bismillahi maa ngi ñaan te basmala wa sab al masaani ak fatiha basmala bokk la fatiha fatiha ngi dale ci alhamdulilah ba ci wala daalin basmala ngi dale ci bismillahi rahmani rahim foofu la yem fatiha ju àndul ak basmala nag fatiha bu ànd ak basmala ka ëpp doole du moroomam sax moo tax sidaaji malik ne atxaka bi bismillahi basmalatu wa sab al masani ak fatiha fatiha tudde sab al masani juróom-ñaari aaya yi ñu tudd deux fois fatiha juróom-ñaari aaya la aaya bu ne dañ ko tudd deux fois alhamdulilahi rabbil alamin rahmani rahim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmani rahim it maliki yawmi ddini ne iyaka nahbud neti wa iyaka nastain ne ihdina sirata almustaqim neti sirata alladina anamta ali juróom ñaar yu ñu takkaraadu deux fois la moo tax ñu tudd ko soppal masani ko koy prime sayir bi mais prime batin bi mooy juróom ñaari jikko yi nabi rawe ñépp maa ngi lay ñaan ci basmala teg ci fatiha woo ayatil kursi boo ko nee cas di ko jàng bunti asmaan yëpp ubbeeku feeg arrêté woo du tëju def naa dinañ ci dinañ ci dinañ ci waxtante ndax ba mu teeree rek la yàlla nee na bi c'est fini bu propagande te bu xeexati yëf yi leer na nañ ku dof dof lu sa bopp la ikraha fi diini qad tabayyana rushd min al-ghayy bu ñu la expliqué saa saa rek nga xam ne kenn waratu la wax kenn dara ku dof dof lu ba dal ci ñag bi it yaa koy yëg dinaa leen ko wax léegi incha allah. sant sant sant yàlla ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm gërëm gu amul limite. nagar ni biig maa nga ci aéroport yi Abidjan huit heures laa fa toog ba deux heures dix ñu door a décoller yërëm ñaa ñi ma gunge yépp ba yebal leen ñu ngi agsi fii cinq heures moins quart bi ñuy noppeeg suñu yépp di génn jëm Tëngéej te maa ngi naan gaa yi fitna dina am ndax damay jàngi ëllëg Dakar te it ayewuma yoon mayu ma fa ma toog sax xaar jàng yi yoon mayu ma loolu jaaruma sama kër soxna dama teggi rek dem tëngéej keroog ba may dem yàlla yóbbuwale dat bi daan naa wax ñaare ne xanaa daal ma bañ a wax waaw waaye bu ma nee waaw dinaa ci góorgóorlu lu ma mën am na xale yu ma àndal daaw sama rakk ju baax ji tafsir saaxo ci la toon nit dugal ko ci lu ko jural duma boo xalaatee ne di nga mucc gàtt nga xel oo nit oo nit mu wuy si lu lan ko ooyee mbaa fan ko ooyee jural koy duuma ca yàlla yow ma ko oo boo fooga ne mucc nga gàtt nga xel im tamit jural leen ay duma ca yàlla wala nga oo leen la nga leen def loo jural lay du jural leen ay duma ca yàlla wala nga oo leen ci lii bu laaj duma def loo leen fa lu laaj duma soo gàttee xel ba defe ne mucc nga kenn gënu laa def ku oo nit ñi ci lu tax yàlla fay leen wala nga oo leen fu tax yàlla fay leen war ngaa xam ne pay googa di nga ca bokk te fii ku fi fanante yàlla fay la incha allahu taala ñaar yëpp rekk am nag amul ñett lu baax ak lu bon ku newul ci lu bon yaa ngi ci lu baax ku newul ci lu baax yaa ngi ci lu bon lu bon nag dafa amee borom seeni waram dañuy def lu bon soobu yoon bu bon jëm ci kër gu bon guñ dul génnee te ba ilaa yawmal qiyaama yàlla ñu ci yàlla musal falhamaha fuzuruha ñu bon ñaangoog waaye alhamaha yi taqwaha ñu baax ngaaw falhamaha fuzuruha nafsu lay wax kat falhamaha fuzuruha kama alhamaha taqwaha su góorgóoree nag ba xam ne def na ci ñi nga xam ne sakka kon xa daf daha man sakka su dof dofloo ba des ginnaaw kon xat xaaba man dasaaha falhamaha fajuruha waaw falhamaha fajuruha amul benn bakkat bu xamul càncaay seytaane ko koy ñuux waaye lu mu bon bon it xam lu baax malaaka ko koy ñuux ñaari ñaari ñaari candidat yooyu nag seq leader boobu dañuy ëppante doole yoon wu bon wi ñu bon ñaa ngi ko suub di daw xel yu riib di def lu bon di ko wax dëgmal kër gu bon koo xam ne dara lu baax amu ci te duñ ko génn ci ba ilaa yomal xeer yàlla ci yàlla musul yoon wu baax wi ñu baax ñaa ngi ko suubu ndeysaan mel ni ñu ak yéen di def lu baax di wax lu baax di yéenante lu baax di fekkante ci lu baax di dimbalante ci lu baax di waaxu di ñëkk rek ba jëm ci kër gu baax bu tedd googu di ajjana te dootuñu ko génn ba ilaa yomal xiyam yàlla ñu ci yàlla boole niru ngeen ko nag torop dawaay rii fi ñëw yëpp maa ngi sant seen kilifa sunu borom dafa wax ci alquran ne maa ngay jotal nuyoo sama sëriñ di seen sëriñ fii la daan toog ak mu jot mais Sidi Abi Bakri si nañ la xaaj Mansour si nañ la xaaj Malick si radiallahu taala anhu dafa ànd ak papaam xalifa bi Abdal Asis xafasahu wa ayadahu wa nasaruhu alxaafisu annasiru haadi maulana tabaraka wa taala moo kuy kilifa diina dafa ànd ak moom génn moo ko teree teew si waaye njabootam gépp ñëw na ak xaritam njabootam sax xama mooy ñan da xanaa kenn ñam ñu fee taxaw ne nooy njaboot yi ñoo fi nekkal njaboot yi Babacar Si ku ko ñemeñ fii jéem a wàcc sa moroom ñëpp njabootam bi dégg naa yoro di wax naan déedéet président nee na ñu oo leen ngeen wuy si sant nañ leen mais wuy si wuñ leen seen bopp la ñu wuy si kii daawaa la boo xam ne min ibtidaai xalqi aadama ila yawmina hada mbaa mu wet la mbaa mu rus la mu di la tagg tagg woo boo ca baaxalee boo watul mbett dal la mu ngi mel ni nga ñub ku la bañ nga ñub ku la bañ mbaa ku la réeri kooku mutu la naqarlu ku la xamul bañ la mutu la naqarlu ku la bëgg di la tagg mutu la dépendre tagg bi ma tam baaxal ak ŋàññ bi wut a tiit mooy ki la xam piir xam sa saayir xam sa baati nga xam ne boo duggee lañ koy def boo ubbiwul du ko xam su ngeen tàggoo mu dem këram nga dem sa kër la ngay def du ko yëg su ngeen dendee sax muy wax ndànk doo ci dégg boo ci déggul doo xam li muy wax su xalaatee doo xam lu muy xalaat kooku boo ko taggee tagg ngay heureux ndax xamula koo koy kan ki kii gi jar a déglu taggam mooy ki nga xam ne soo teewee ak mbooloo mu xam li nga nekke soo tëjee sa néeg mu dugg ci biir booy sàngu mu dox sa diggante bàjj da nga naan wa man ahsana kenn gënu la rafet mi man waa ja nga xam ne daawa na ay moroomam ila laay jëm ci santaane bi yàlla yemu ca wa amila mu def saali an daa ila laay wa amila saali an defe naa def ngeen ñett yooyu da ngay laaj ñaata attaque naa la njool màkk def ñu ne waaw si mu ne xiila vii ka nan ñu xeex fi mu xeex vii ka la ma dictale nga calcul mental vii ka waaw six kef vingt def gëdoog un vii ka ne bi def na vii ka ci attaquement waaw siis keef rek lif gu dëg un lu tax si daji Malick mën a jàng lool ba si ba baxaru bi mu woyee rasulullah kenn mënu ko way di tudd chiffre ku ko wax taarix ku wax histoire foog nga tudd chiffre mille neuf cent tel moins tel mu xam ne dina diis ci basit bi mu way ci baxaru bi mu way tawil mutaxaarib ak basit dañ di dañ di dañ di dañ di mafaila dañu gën a dañu gën a dang dañu gën a dang ci bahru yi ñuy waye poids yi ñuy teg pour way mu ne fi ñukk nag chiffres yi di indi lee sax comme arabe dafa riis ci bu ne lettre la a ba ja da he wa ra he pa ya ka la ma na sha a fa ba kha ra sa ta wa wa ba va ra je sunu lettre abajada ak bu français dañ leen ëppale ñetti lettre ci la ñu gëme bés penc ak déeg dekki waaye nag prononciation yooyu uute mais benn la arabe bi dafa ñëw ne a ba je da sëriñ ba loolu wax taalibe maître ba ca école ne a b g d a b g d a ba ja da ah abbas dégg ñëw na de tigi balaa ngaa xam nag ne benn la nga dem sax ba ci biir mu ne bu njëkk bi jege ñu ne ma ne ko boo demee ba ci biir ca nga koy gën a xam parce que k la ma na niroo naa k l m n k l m n k la ma na Lif toujours un là. Ba deux. Jim trois. Del quatre. Alcoubert cinq. Waw six. Racine sept. Ablonk huit. Tatank neuf. Bas jeex. Ñu dugg ci dix yëpp. Yaa dix. Keef vingt. Lam trente. Mim quarante. Nun cinquante. Sa soixante. Ay ndega soixante dix. Fa quatre vingt. La quatre vingt dix. Dixième jeex ñu jëm ci cent un. Xaaf cent. Ra deux cent. Sin soro trois cent. ta tombe 400 yetu tombe 500 kadam delu 600 del di toy 700 ta tanke yu toy 800 xey ndigal 900 sen resu toy 1000 abaja di jeex mawda nag di wax ak yow ca leetar ya o nekkoon mu ne sitta wa isrinan maxaasihi day gud mu ne la maxaasihi wii kaa nga dem ci isaabul jëmil na waaw six la keef vingt la liif un la nga boole loo am am ñu ne déedéet déedéet déedéet maxaashi yëh dii la du vikka yaa dii la yaa dix alkubeer cinq del quatre loo am waaw góore waay am déedéet du noonu du vikka du yah di ñu ne lan la mu ne kadidan keef vingt ba deux del quatre vingt six dix neuf vingt cinq Haji Malik ne ala xilaaf werante la woo xam ne ataana dikkal nañu min sabil qadimi ci ñi jiitu woon tey def histoire rasulullah waaye kii mosuloo noppaliku daanaka teg di dóor ci ndey joram mais bu nuxur gi gëjee naan ci dënnu gileem gi kër gi fan kii wax na kii def na def na it xaal daana jënd lu mu soxlawul jënd ko ci noonam jënd ko ci prix bu ko jarul maye ko ku man loolu muxtaar ku man loolu jënd loo soxlawul jënd ko ci sa noon jënd ko prix bu ko jarul ba noppi joxe xam nga si daaj naa li jasawlaa naa xayram xam nga dàmbalee na la benn way wow wax la ci xeeti oote yëpp mais boo demee ci nuuna it wax na fa loolu nuuni ya dafa am ñoo xam ne njol màkk ah yaa kay ndeysaan jeng yal na la yàlla yombalal junni sunu mbokk mu baax boobu li bàcc bàcc jóob